jëf mbokk yi ba tey ñu ngi file ci kër Seex kër ki nga xam ne moo di Adja Fama Pen moom aussi mu daal di bokk ci accident bu métti bi nga xam ne moo amoon fale ca Ndulu ñu ngi toog ak ki nga xamante ni magam la wala sax rakam dañu koy nuyu rek waaye jaale ko bu ko defee mu indi ay kàddu yu seede ci euh, magam bi nga xam ne moo fi bàyyee ko maman ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tur bi naka la. Xadi Baara laa tudd Xadi Baara Pen. lan nga ci maman mi nga xamante ni moom moo fi bàyyee ko. moo topp ci man maay gannaaw ba ñu la jaalee sama jooju ci accident bu metti bi nga sarak ji ci accident bu métti bi nga xam ne moo amoon ni niki démb mu daal di ciy bokk bañ la ko jaalee ba noppi yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. xanaa baax lool ci man barki démb rek la jóge sama kër man Touba laa dëkk barki démb rek la fa jóge ñëw fa indil ma li nga xam ne toujours moom laay sol ci màggal moo ma koy indil moo koy ñawlu ñawal ma ko ndogal bu rafet indil ma ko. ma ne ko ay yow faama mënoon ngaa toog rek xale yi ñoom mu ne ma déedéet maa koy indi kenn du ko indi maa koy indi te booba yow daa ñëw bu tàgg toog man daal di may tàgg ki nga xamante ni moom lañ demoon saraxam jur boobu la kii gaañu ni ma goro Adama Càmbare daa gaañu jabari commissaire yaay ji dafa gaañu commissaire nag suñu doomi nijaay la mhm. waaw mooy dëj ba fee ma ne ko waaw mu ne ma dañ koy sarax sarax sa alxames la man kon man damay bàyyi ba alxames ja rek mu ne man mi sax noonu laay def di dem déwuma ci dëj bu tooy damay bàyyi ba alxames ba alxamesee ma ñëwaat ci dëj bi ci fa jóge daal dem Mbàkke ci sama jeneen mag ji kooku mooy sunu mag ñun ñëpp moom Mbàkke la ne moom itamit moo koy jox kii euh, li muy sol ci màggal chaque màggal moo ñuy xotti lu ñuy sol baax lool baax lool tabe wax dëgg yàlla ngeen yéegee rek li nga xam ne moom moo xew muy accident bi naka ngeen ko yéegee. ndax ba mu ñëwee ah, dañ maa woo commissaire moo ma woo fekk may julli tàkkusaan man de sama sët bi demal nga décroché kooku dem te sant mu coupé ma bàyyi ba julli ba pare daal di koy rappelé mu ne ma faama ñoom ñoo def accident fii léegi man ne ko lam def accident faama de choc xajut ci moom ndax moom wérul mu ne ma ah, ñoo def accident de ma ne ko nu mu def mbaa dara mu ne ma tane na ñoom ñoo nga hôpital jànnatu te ñun suñu kër ak jànnatu soreewul ma daw jànnatu dem bay bëgg yegg ñu woo ma ni ma ñëwal ndekete bi ma génn rek woon sama woon sama doom ju góor ji wax ko ko ni ko moom kat foofu la yem. Mm-hmm. man nag yëguma ci dara ñu di ma ko nëbb di ma ko nëbb ba liggéey ba pare laa koy soog lañ ma koy soog a wax waaw waaw. bi nga ko yëgee lan nga yëg ci ko xam ne yàggul jóge sa kër. metti lool metti lool ci man nag metti lool metti lool ci man waaw waaye ma sant rek te xam ne rek loolu la yàlla dogal. waaw yàlla moom lu mu def danga koy sant yàlla rek waaw sant rek ok ok. ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi leen di fay. naka la. Abdoulaye Diaw. Abdoulaye Diaw ngeen am doom ci accident bu metti bi nga xam ne moo am ni ki eh, démb mën nga ñu wax ki nga xam ne moo bàyyeekoo woon fii eh, naka la tudd. kooku mu ngi tudd Adja Fama Pène waaw. maanaam sama soxna su mag la maag jëkkëram ñoo bokk ndey ak baay ah, mu nekkoon ku baax ku jullite nekkoon koo xam ni it amul xaar ma yàlla ak kenn lépp loo xamante ni daan na ko waaj ngir def ko bu dee si moom si doomam dina ma woo laaj ma sama xalaat nekkoon na koo xam ni ay dëkkandoom démb fii ku ñëwoon ba gis leen xam ne lu baax rekk a baax ay dëkkandoom yuuxu na daanu na nee na ñoom kenn ñàkk ñoo ñàkk ci muy dëgg alam daaw ko boole kenn lu xew moo fay jiitu boole ko def si alalem doomam yii noonu la leen buggee woon noonu la leen yare si yoonu yàlla siraati mustaqim waaw lii daal xam naa ko si naka ngeen yëgee rek accident bu metti bi nga xamante ni moom moo amoon niki démb. waaw man démb damay julli tàkkusaan may julli 5 heures sama soxna ak sama doom ñëw ni ma ndax yëngale xew ma ni déedéet ñu wax ma ko ma daal di jóg ñëw fii si kër gi bi ma dikkee toog ba sa kanam nga demoon hôpital ñëw wax ko yàlla suñu borom kenn di ko coog moom bu ko neexoon tey ñu nag njaboot geeg ñëpp mu jël ñu yóbbu. waaye tey jii si ajjuma yi biñ koy denc di ko waajal gis ngeen ndox mi fi sotti gis ngeen biñ ko dencee ba pare gis ngeen ndox mi fi sottiwaat ak kañ la gën a taw fii si njaareem kon nag nit da doyloo yàlla moom nag ko doyloo woon yàlla la waaye day ah lii de moom seere bu baax la xel dal na si daal waaw. Adja moom gën ma jot na yegg hôpital wala moom fi accident bi la amee la wàññee ko. moom nag fii accident bi amee yàlla def na jot ko àgg hôpital waaw foofu leen ko jëlee yóbbu ko am na ñeneen nag ñoo xamante ne jot nañoo yóbbu uh, àgg hôpital waaye ñoom it am na si ñoo xamante ni yàlla def na la sa gën ñeneen ña sa des nag ña nga fa ñuy ñaan yàlla suñu borom ñooñu yàlla fa seen bopp ba lan nekkee yàlla tegil leen ko. nañu papa aussi magal bi nga xamante ni moom la ñu daal di jub si accident yi dafay metti lool te saa bu ñëwee faat ay bakkan wala am ñu si am ay gaañu gaañu tey boo amoon message booy lancé jëmale ko ci côté chauffeur yi tey ban message lay doon. waaw xam nga dafa am loo xam ni bu fekkente ni dafa jóg lu mel ni màggal lu mel ni gàmm wala beneen xeetu xew-xew buy am dafa am loo xamante ni dafa jaaduwut yokki paas jaaduwut benn ñaareel bi nit ki. bu fekkente ni eh, da ngay dawal soo sonnee gaareel sa oto bu fekkente ni bii yow sa wàllu bopp yoon wii da ngay xam ni yow dong moomoo ko parce que da ngay dem soo moroom topp si yow ñee di ñëw seen moroom topp si ñoom kon nag dafa am loo xamante ni buñ ko sa buñ ko sàmmantee ak li nga xamante ni bii moom leneen code de la wax rek jàmm day am waaye it di lancer message boo xamante ni bii si sunu takk der yi am na su loo xam ne nag si ñoom la ndaxte oto boo xamante ni bii amuti frein amuti phare amul code amul visite technique nga bàyyi ko muy daw dëgg-dëgg loolu jaadu jaaduwul jërëjëf. papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Mbaye Diaw. papa Mbaye Diaw lan nga ci Adja mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. ah di ko naqarlu rek njaay bi yëpp am ci naqar yaakaar naa ni démb ci bu yëfi amee ba fi ni waxee yow gis nga fii ni mel jooyooy yuuxoo yi dëkkandoo moom daa mel ni yàlla yàlla daal eh, jël fi koo xam ni dina naq dina naq fii ci Ndiaye bi parce que nit ku baax la woon ku yiw ku am suture ku am teggin man mi lay wax man maa topp ci jëkkëram maa topp ci jëkkër ji et eh, musuma wax lu ma naqari musuma ko def fu ma gisee teg na ma ko ji jox ma cër. am naa ci naqar li ma ko yëgee daal la man mooy leen man naa maa ngi doon naraw ba gi ba ay 16 heures 16 heures moins sama téléphone yuuxu ma jël ko doom ji capitaine ni ma am loo xam ne man ko lan la bu ñu say sama yaay daal nga ca morgue ba gaañu na noonu laa ko yëgee fi accident bi am moom jot fa faatu parce que mu woon ay boor yi après nduró woon après nduró fa euh, fa accident bi amee woon ma fa ci man xam nga ni fi mu toll soo ma génn yi xam nga ni sama santé am loo xam ni ma euh, ne waaye euh, boobu su ma ko téeloon yëg su ma doon raam sax fa accident bi amee parce que moom jaral ma ko moom dafa nekkoon sama xarit sama xarit sama moom di toog di di une semaine mukk ci woowuma mbay da nga def naka yaram yi xam nga man je si malade depuis deux ans dama feebar dafa feebar def opération ak yooyu yëpp deux ans yëpp dama tëdd mais moom fu mu toog semaine wala wala wala quatre cinq jours moomu noo nga def da nga taxe mbaa yaram yi feex vraiment demam bi naqari na ba fu fi naqe faqan dem yàlla na ko yàlla xawe àjjana ci it e, bisam bii tey yii ban koy doon fee yàlla ji doon taw di taw ban ba ba ban koy dugal ci pax ma yaa yàlla ji doon taw ba ba ni ñëw fii ci kër gi yàlla jaa ngi taw ba ba ñuy waxtaan ba ba ñuy añ yàlla jaa ngi taw moom xaw ma kan moom waaye moom leer na ma ne ko kitaab bi ni ci barke si Muntaxa Basiiru ci barke si Tuubaa ma nga àjjana loolu la ma nga àjjana moom message bi mooy leen rek le chauffeur si doon ndànk xaalis jarul yéen nii ay pass deux mille francs ay pass cinq mille francs ay pass dix mille francs ay pass leen yàlla jox na ko nit ñi suñu sëñ Tuubaa fu mu nekk su noonu pass euh, cinq cent mille am ñoo xam daañu génne daañu ko fay sëñ Tuubaa jaral na ko ci sëñ Tuubaa dañ la jox mooy lu mu mën def ci àddina yàlla dana leen ko jox waaye dafa teguwul fenn nit day e, doylu liy doylu mooy defal li yàlla bëgg di yonenti bëgg yàlla di la dimbali yàlla yàlla du sàgg sab sag mais am na yoo xam ni moom baaxut ci it nekk ci télé bi ñoo war di ñoo am am na si loo xam ni ñoom ñoo ñoo ko ñoo ñoo ko war a am na si oto yoo xam ni waruñoo daw oto boo xam ni benn làmpaa ngay tàkk benn baa ngay fay benn baa ngay kii ko bàyyi muy taw muy muy taw mën naa am am na ci accident yoo xam ni saa waay eh, la yàlla xam doy na ah am na loo xam suñu ko jut dunoo war gaare oto ba waaye nag dërëm jarul yenn yi dërëm jarul yenn yi en tout cas may wax daal mooy ñoom yàlla leen yàlla yàlla leen yàlla dimbali dëggu ci màggal gi bisimilahi rahmaani génn ci màggal bi ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw jërëjëf mais lii maa ngi leen di gërëm di leen sant di nga ni ji ngeen ki fi jógee nii waxuma ñun famille bi waxuma ñeneen waaye mën mën naa ne waxuma la waxuma rek mën naa senegal ku ko xam am nga ci naqa naqari na la ñeneen ñi mu àndaloon ñëpp dem ci accident bi yàlla ni yàlla xare àjjana ñoom ñëpp yàlla ni yàlla xare àjjana waaye Sëñ Tuubaa ñoom ñëpp man maa ñaan sëñ Touba ak barke si Muntaxa mi nga xam ne ci laa sukk jéblu sëñ Touba si Muntaxa ñaanal sëñ Touba ñoom yëpp mu yóbbu leen àjjana ci leen yóbbu àjjana jërëjëf merci. fekk ñu ngi lay nuyu. Hmm? ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay di fay. tur bi naka la. Demba Diaw Papa Demba tey ñu ñëw file ci Kër ñëw seet si leen gannaaw accident bu métti bi nga xam ne moo am ni ki démb fale ca euh, côté Ndulo bi ngeen am kenn koo xamante ni daal dina ciy bokk ndax mën nga ñu ñëwalaat ci ki nga xam ne moo bokkoon ci famille boobu bokk ci accident bi naka la tudd ak yow lan nga ci moom. ñu ngi leen di ziar di leen masawu déplacement bi di leen gërëm di leen ñaanal tawfiix ak taysiir chaîne bi yàlla na ci yàlla wàcce barke quoi. di leen biral ni accident bi moom ni ma dikkee bon moi je vis au Dakar quoi ay côté 16 heures lañ moo téléphone annoncé ma dese bi ni ma faama daf si bokk ko sunu doom jabaru grand frère la mooy suñu taw kër quoi mooy sama taw papa bon mu nekkoon la ko soxna su baax sax nga xam ni ak mbaaxam foo ko takk dépassé na ko bon. faama mi nga xam ne ma bokk ci accident bi ndax mën nga ñu wax ay atam ci ñaata la toll. war na woon am ay normalement ay soixante treize ans soixante dix gannaaw ba ñu la ko jaalee ma sawul ma ne gannaaw ba ñu la ko jaalee ma sawula ci tiis bi nga xamante ni moom la ñu daal di bokk ñu bàyyi la rek nga joxe ay kàddu yu seede ci Adja mi nga xam ne tey moom moo fi daal di bàyyee ko. Adja Fama dafa nekkoon maanaam kenn si ñun. plus particulièrement man nga xam ni sama xarit la woon ba toll na benn moment ma may ko njëkkee donc xam nga kooku relation bu baax rek moo ko mën a indi bi ko yàlla defee sunu mag di sëy ak moom mu nekk ci kër gi ba ni ko yàlla jëlee mosuma koo gis mu def nit lu bon wala mu wax ko ba mu jéem ko si moom jullit laa ko xamale bëgg diine bëgg doomu adama yi yor pusoom di ñëw conflit bu am diggante famille mu jël pusoom di ñëw jël alalam di ci def ah di boole nit ñi pour ñu ànd pas plus tard que avant-hier elle m'a appelé pour que ñu célébrer màggal bi fii ko au lieu que ñuy dem ba Touba parce que day sori ndekete yow moom du ko fekk pour vous dire que bon kër Cheikh gépp maanaam quartier bi ñu dëkk nii parmi les neuf yi dee yëpp fi lañ dee quoi donc na ngay tourné dëj fii dëj fii dëj fii ñoom ñëpp nag yàlla yàlla xara leen àjjana am nañ si ñoom yaakaar quoi puisque benn famille rek booy xool quoi puisque moom dafa demoon Touba pour jaale ji au retour lañu yàlla def du gën. dafa demoon Touba ngir jaale. jaale ji woon quoi. benn mbokk bu wàññeeku benn mbokk bu wàññeekoon ñu dem jaale ji ko en famille. au retour la leen camion bi mbëkk ñoom ñëpp ñu faatu genn wàll gi quoi je veux dire bon rescapé ñu ngi à l'hôpital bon mais. yàlla rek moo si des bu ñu dundee dootul nekk doomu aadama yu am njëriñ dal mais lépp dogalu suñu borom la ñu ngi koy sant yàlla te di am yaakaar si ñoom parce que vraiment ñoo def lu bon mosuñu koo wax mosuñu ko yàlla na yàlla xarit ajana ñoom ñëpp ñoom ñu fi jege vraiment yàlla taas ñu si seen barke ko barke nañu ne ma am solo solo. kon ndax xam ngeen ñaata nit aussi ñoo si am ay gaañu gaañu ci accident bi ñoo nekk hôpital jamono yi. ma ñi ma ci xam mooy sunu voisin yi il y bon enfin ñu ñu bokk même famille ñeneen ñi réanimation ñeneen ñi am ay dama dama dam am na suñu transfert yóbbu ko Touba donc noonu daal affaire bi demee quoi pour le moment hmm? a ah, Adja moom jot na yegg hôpital wala fu ñu ko kii. il est décédé sur le coup quoi. Hmm. Adja Fama il est décédé sur le coup avant d'aller au tey boo amoon message booy lancé jëmale ko ci chauffeur yi ngir ñu bàyyi ci xel ndax màggal bi tamit li si des bëriwul te accident yi saa bu ñëwee rek faat bakkan wala mu am ñu si am ay gaañu gaañu tey message bi lan lay doon. li ma mën a biral daal si accident yi que vraiment autorité yi nañ ci jël ay mesures puisque en bi may départ Dakar si guddi gi vers vingt et une di ñëw Diourbel camions yi nekk suñu def sa kanam yëpp amu ci benn bam feu ci arrière. comme quoi yow da nga dem ba jub ko loo xamee ni oto mi ngi daw ou soo nekkul un bon chauffeur da ngay daw ba dugg suuf camion bi donc les gendarmes là et les forces de l'ordre ils sont puisque oto bu amul feu mënoo ko bàyyi muy daw guddi xaw ma lan nu mu demee noonu bañ leen di bàyyi mu dem mais ñoom responsabilité bi am nañ ci pas de responsabilité donc j'ai parlé yooyu fort war nañ xool autorité yi ñu baax ak ñoom ñu jéem a bàyyi loolu ñuy def quoi oto bu nekkul en règle nañ ko garer mais jàpp ni di leen rey comme sa comme ay muus vraiment il est temps qu'on arrête quoi oui amin amin yàlla nañu yàlla dolli amin amin amin amin ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay fay tur bi naka la jëmbu pen Adja jëmbu pen Adja jëmbu lan nga bokk ak Adja Fama nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeeku ñoo bokk ndey ak baay waaye muy sunu caat gannaaw ba ñu la jaalee eh, ci seen rakk jooju nga xam ne moo daal di bàyyeekoo bokk ci li nga xam ne ñoo bokkoon ci accident boobu nga xam ne moo amoon fale ca Ndoulo ni ki démb yan kàddu yu sedd rek nga mën a joxe ci moom. ah li ma ci mën a joxe de mooy ginnaaw ba ma jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah man de dama koy ñaanal rek ba fu mu jublu yàlla na fa yàlla yiwu jub yàlla na fa yiwu yàlla jublu te bisam bii ko yàlla wërsëgale. yàlla na ko fekk ci biir bàmmeelam ba moo ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk di ko ñaanal rekk nag lenn rek ma naqari ci moom day pen gaa la xanaa mooy fanu gàtt bi te naqariwul sax naqariwul ndax yàlla bu la tegee mettit dañuy ñaan yàlla dékku ñàkk mettit woowu te du mettit sax mettiwul metti na ci ñun mais mettiwul ci yàlla sunu borom bi waa te ci mbaax rek la mas a nekk nag ba nii mu tolloo ni mu toll ba nii mu amee njabootam gii waaw kon nag ñun daal tey sax xol yi neexul ba ma mën a wax waaye dañu koy ñaanal rek ci yàlla sunu borom bi yàlla miy maye yàlla na ko yàlla may àjjana fi daw si ak la gën a marqué ci sa rakk jooju nga xam ne moo fi daal di bàyyeekoo. xanaa bis bu sedd bi rek bis bu sedd bi guy ak xéewal yi muy taw di xéewal yàlla na ko muurloo ak ku ko fa fekk ak fa fekk. naka nga yëgee rek na sa rakk ji daal dinay bokk ci accident bi amoon démb daal di génn àdduna. waaw naka. nga fan nga ko yëgee. man daal man kees laa dëkk. nëgën si démb la ma sama doom bi woo. ma yaay foo nekk. fekk sama yaram yëg na ko mais xaw ma lu mu doon. waaw mais sama yaram yëgoon na moom ni am na quelque chose quand ne va pas waaw mu ne ma am na lu xew de ma ne ko mbaa jàmm mbaa doy na waar de nouvelle bu metti la ma ko ah, lu metti de yàllaa ko moom lu seddit moo ko moom waxal rek mu ni ma sama tante faama de foofu nag laa gëj a xam lu nekk na gën ni démb maa ngi ci yoon wi di ñëw egg si boori vingt heures waaw ah lan nga gëj a gis Adja Fama wala kañ ngeen ko ja déggante bu vendredi chaque vendredi mu yónnee ma message wala mu woo ma téléphone di ma ziar chaque vendredi nag gëj a fee wallaahi wallaahi wallaahi vendredi tey de laa ko déggul lu bi ko déggul vendredi tey ci koo xam ne chaque vendredi nga dégg ko lan la def ci yoon ah xanaa du ma ni naqar nag ndax lu la yàlla teg doon ni naqar du ma ni tiis lu la yàlla teg doon ni tiis la dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla rek ba mu bari te xam ne lii la yàlla dogal ci moom mënuñu ci dara yàlla moom moom bu soxlaa ñu soxla mu jël mu jël ñu bàyyi koog moom. jërëjëf yaa booy ñu ngi la koy jaalee bu baax a baax di la masawu tey bokk ak tiis bi aussi. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yal na leen yàlla fay jërëjëf jërëjëf yàlla dëgëral seen taxawaay yëkkati leen ca kaw a kaw a kaw may leen fan wu gudd wànd ak wér allahumma amin di ñaanal nag ñii mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxoom njabootam gi yàlla na leen yàlla gungeel boppam aar leen suturaal leen ci darajay nabil Moustapha alayhi salaatu wassalaam